fekkee ndaje bi nga xam ne ñëw nañ pour fekke ko ak suñu sëriñ suñ Muntaxa Mbakke yal na yàlla suñu borom guddal aw fanam te itam liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal sëriñ Touba yàlla suñu borom defal ko ci ndam yi gën ci ndam yi li tax ñu ñëw fi nag mooy euh, ñëpp xam nañ ne sëñ Muntaxa bu ñu ñëwee ak bu ñu fi ñëwul yëpp ci ay ndigalam la nekk parce que sëñ bi mën na fee nekk doo fi nekk bis bu nekk mais dangay toog fa nga nekk di ko déglu. fu mu joxañ fa nga jëm lu mu wax nga def ko lu mu la tere nga jëm koo bàyyi loolu mooy position taalibe bi nga xam ne bi ne moom noonu doon def mais suñu ñëw bii ñëw fii tey nag dafa am ñëw boo xam ne bii dafa nekk ñëw bu am solo ndaxte buñ gisee sëñ bi li muy def ci dëkk bi di dimbali nit ñi bu ñu demee ba dëkk bi nekk ci ay coow ak histoire bu mag nekk fi dafa def rôle bi mu waroon a def mooy fexe ba arrêté ko kon ñun bu nekkee ndakaaru dëkk bi toll foo xam ne fii nit ñëpp dañuy fëgg seen dënn violence bi di fi am ay proportion yoo xam ne yii mi ngi ñuy bëgg jaaxal ñun dañ na woon dañuy def suñu warugar muy ñëw ci moom sàkku ñaan ci moom wax ko ne ko réewum Sénégal fii ñu toll nii toll na foo xam ne fii laaj na moom mu teel cee wax balaa ñoo dem ba ay ay di fi am parce que nit ñi ku ci nekk yaa ngi fëgg sa dënn dëkk bi léegi violence am na fi wax naka su dul noonu mi ngi fi am ñàkki teggin ba tax borom xam-xam yi ñu ngi toog mënatunoo génn di wax ndax ndaxte borom xam-xam bu toogee di wax ak koo xam ne kii wax rek la xam bu waxee mu weddi ko ñàkk ko teggin mu toog ci réew mu mel ni Sénégal xam-xam moo ko mas a yor xam-xam moo ko war a yor kon nag sama devoir la woon ma ñëw ci moom. pour wax ko ne ko sëñ bi yow de yaa ngi ñaanal dëkk bi lu nekk yaa ngi ciy def yow li bi mu tàkkee yaa ko fayoon wante nag fi mu toll nii war nga cee waxaat woo ñi nekk ci kujje politique bi wax ak ñoom pour que lii ñu def senegal mu am jàmm bi ma ko waxee itam ñépp gis nañ ne mu rafetlu ko daal na mu loolu moom lu rafet la bu soob yàlla daan ci taxaw dinañ ci dox beneen bi ci dolleeku mën na ko sëñ bi réew mi day am mbay moo ko yor say taalibe ña nga nekk ndakaaru nekk fépp <coughs> di def ay marchand ambulant te itam li dara doxal Sénégal mooy mbay kon nag man dama ñëwoon di sàkku ci yow nga woo sa taalibe di président Macky Sall nga boole doole ji nga xam ne bi Sëñ Tuubaa am na ku nga xam ne lu ñu yëkkati mu jóg mu ànd ko ak état du Sénégal ñu dem jëli ndox mi fële ca fleuve ba jëlee ko ay lac de indi ko mu baawan ci biir réew mi bañ a nekk ndakaaru njaay génn pour que ñëpp mën a dem liggéey ñu mën a def mbay mi parce que Sénégal mbay moo ko yor te ndox mi moo ko mën a defar te boo ci jàppee wax ci président Macky Sall ca taalibe dinañ mën a jëli ndox mi fële indi ko pour que ñu liggéeyee ko loolu bi ma ko waxee sëñ bi rafetlu na ko toog na ma loolu moom lu war a nekk la kon nag suñu ñëw bii ñu fi ñëw tey du ñëw la boo xam ne bi ñëwu développement la ñëw économie la ñëw jàmm ci biir réew mi la parce que réew mu jàmm amul liggéey mënu faa am te développement munu faa am loolu daal moo doon tànk yi nga xam ne bi ne moom moo ñu fi indi woon te itam ni ñu ci sëñ bi dégloo suñu xol sedd na ci trop parce que ñoom seenu nopp moom lu ci dugg yàlla suñu borom danañ ca def tawféex te dañ ca wax na ne loolu moom rafetlu na ko donc loolu daal moo ñu fi indi woon tey man nag suma délégation doon ko ñëw wax ko aussi suñu parti politique li ko tax a jóg jàmm ak liggéey ak itam wax ko mu ñaanal président Macky Sall pour que fa mu bëgg yóbbu réew mi mu yóbbu ko fa te lépp nekk ci jàmm. Euh, parti politique la yor nekk ci benn majorité bu tudd benn bokk yaakaar fépp foo xam ne fii daal gis nañ ne ñoom mën nañ fa ànd ak ñoom ñu jox ñu suñu gëddë gis ñu te ñu am fa ay nit yu taxaw. kooku mën nañoo ànd ak ñoom mais bu ñu gisee ni tam jafe-jafe dana am ba duñ mën a def benn liste boo xam bi ñëpp dinañ ci dugg li nga xam ne bi la moo ñu war ñu taxawal suñu benn liste ak nit ñi nga xam ne bi am nañ leen ci gox-goxaan yi te ñu mën faa tekk dara ñu dem jéem a contrôler ji collecteur local yi loolu daal mooy suñu position mais toujours est-il que du ñu ànd ak opposition ñu président Macky Sall la ñu àndal majorité am la ñu nekk fuñ gox bu ñu am daal nit koo xam kii tekk na ca yaakaar ne kii mën naa jariñ goxam te kooko décidé pour dem ñu dañ ko jàppale incha allah bi leen li def nag ñu ànd pour renforcer doole président Macky Sall pour que mu contrôler commune yi waaw. non man Darou Moussi la ma fa war a def daal mooy euh, gis naa ne danaa def sama kéemtulaay kattan pour que xale ya nga xam ne bi la ña nga nekk Darou Moussi di ay xale yoo xam ne yu am jom lañu doo leen dégg ci xaste doo leen dégg ci saaga doo leen dégg ci naka xam nañ seen bopp te xam nañ ne politique bii ab yar ak teggin ak rafetal la war a àndal ñu danaa leen jéem a jàppale ci biir benn bokk yaakaar bu président Macky Sall pour que ñu contrôler commune ba comme ni ñu ko bëgg a contrôler feneen man encadrement laay def mais danaa battre campagne bu soob yàlla ak yonent bi pour que ñoom ñu gagné commune ba gagné ko ci aussi biir département Kébémer incha